bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. kaddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppe Cheikh Imam Assane Cissé bokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi bu ngeen lo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag bokk na ca rek ab bu ñaxtu la ñu doon amal ni ki démb ñoom askan way yeewoo ca pass yi ngir naka daal di a ŋàññ doxalinu l'hôpital ba fare foofe lu ni mel rek mi ngi am rek gannaaw a faatuka ndaw lii di Moustapha Cissé nga xamee ne sax ne nee nañu daal càggante moo ko daal di yóbbu lu ni mel Tidiane Diagne ci jamono jooju itam naka ngir rek lu gën a ñongal wàllum paj meek paju mi fii ci réewam Sunugal agence bi ñu dénk wàllu couverture maladie universelle ma nga doon xaatim ay convention ak union nationale des mutuelles de santé gunge gi ci wàllum koppar ak wàllum doxalin ba loolu itam daañu ca dégg Cheikh Babacar Dieng ak li nga xamee ne moo di feetuk korite gi bu ñu moytuwulee nag lii di ginaar moom dina manqué mbaa mu cher ba yegg ci loolu lu ni mel itam nag yarkat ak li waxal jafe-jafe bu ni mel loolee itam daañu ko yaatal ci biir euh, xibaar yi reportage koor gi nag niki tey jii ma ngay bàyyi xel rek dëkk bu sell bii di Medina Baye ak nañu dundale weeru koor gi moo xam nag ci wàllu naafila hadis yi ak li nga xamee ne moo di firim alquranul karim gi loolee itam daañu ci ànd ak Lune Badara Diop bu li lépp yembe bokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram toftal ca kooru gay ak Baara Diop jeexale ko li ci yéenekaay yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi le journal Ngoné Ndiaye Reine ci kaddu gi fego ceek Codou Seck madame Kédémi ci wàllum xarale gi asalaamaaleykum mbokk yi dalee leen ak jàmm ci xibaar yi dañu koy ubbee nag ca diwaanu Passy ak nañu leen ko junjee faatu ka ndaw lii di Moustapha Cissé nag merloo na askan wa ba tax na sax ñu wàccoon ca mbedd ya ngir i tamit nag daal di ŋàññi rek doxalinu district sanitaire ba faree foofee la ñuy sàkku nag jamono ji mooy équipe ba fa nekk ñu abal leen Cheikh Tidiane Diagne. yi dem rencontre yi askan wi génn ci mbedd mi daal di tuumaal médecin bi nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàll ko fàcc ci barabu fajukaay bi nekk ci commune bi nu mel ki nga xamante ne nag moo ci ñàkk bakkanam doon wuyoo ci turu Moustapha Cissé toll ci fanweeri at bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne jot nañu ko askan wi nee nañu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fajkat yi ñoom ñoo ko daal di sàgganee. si ñoom la yàlla nag moo yore bakkan waaye buñ ko assisté woon au na ko fi 30 minutes avant ñu koy évacuer sur clinique ba kii na war nga sa jàpp ma problème bu nekk ñu coofi ñu jël ma yóbbu ma gendarmerie commune bu Passy nag kenn mënta téye sa bopp jamono ji du góor du jigéen mag ñeeg ndaw ñii ñëpp daal di ànd ci marché bi ni mel daal di wutali fi nga xamante ne foofu la ñu jàpp ne falay fajo di bokk moomeel baak yu ni mel soxna yi kenn demul woon ñu des madam Ndong moo yoroon seen kàddu ñun nag sonn nañu xamul dara ñoo fi nekk la majeure partie tafa maak dugalal maak dimbale maak ñu leen di fat di leen di indi kenn amu fi diplôme yi nga xam ne ñun ay bachelier am nañ ko fi loo fi nga xam ne duñ leen fi dugal docteur yaa ngi nii non assistant à une personne en danger la barki démb la ñëw suma kër moom ak yeey li nag ñu ne du guleet ci barabu fajukaay bi li muy am bëri na lool man mii suma sët indi naa ko fii ñu ne oxygène amul pour réanimer ko non ay tey la commencé fii ku fi amul mbokk duñ la respecté ku fi feebar néew doole boo moytuwul di nga dee bi baaxul sonal nañ nit te li ñuy def teguñ ko fen médecin boo xam ne daf nekk mu noo wax ne benn une semaine toog na ko di ko consulter malade tey mu ngi séminaire suba mu nga Kaolack gannaaw suba mu nga Dakar te état bi di ko fay xaalis biñ koy fay nekk xaalisu askan bi loolu dafa ñaaw lii du benn yoon te li ci dal yëpp ay jeunes la te tey ñoom seen mbokk ku bi askanu Passy jamono leen équipe bi nga xamante ne moom moo nekk file ndax càggante goo xamante ne amal nañu ko ci askan wi di woo jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu paj mi ci réewum Sénégal mu ñëw ci commune bi ñu mel daal di indi saafara ci jafe-jafe bile. ca jafe-jafe boobee nag ca la ñuy des rek Cheikh Tidiane Diagne askan bi ak la leen métti ci wàllu ba feebar faju mbir maak na mu demee waaye tamit nag la cay seen ak càkkutéef lii lépp nag jooytu na ko moom ndaw lii di Pape Dieye di kenn ca ndaw ña mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. dafa am xamante ni dafa fees suñu xol muy naqar ndax ku xam tey ki génn àdduna démb ñun ñoo nekk ba une heure matin ba vingt trois heures ñu ngi waxtaan ci ni hôpital bi di doxee mu ni man li ma bëgg mooy li nekk ci hôpital bi jóge fi changement am amul leneen lu ma ci bëgg ku dee ak sa bàmmeel weeru koor lañ nekk ci kër Babacar Soxna ñu wax ci ba vingt trois heures ñu dem di ñibbi balaa quinze minutes ci lañ ma woo téléphone ñu ma tafaa piqué na crise tafaa du leen ko baal képp ku ci takk. yàlla ñu yàlla àtteeg yow dafa xale la ñëpp xam nañ ne ay waajuram bi mu génne àdduna yàggul muy ñafe kenn xamee ko caaxaan foo ko fekk mu ngi daan dooleem am sutura di dimbali nit ñi képp ku mu sekkal dara bu génne yaa ko wax ñu sàgganee ko tey parce que na foo xamante am na kër yoo xamante bu ñu añee du ñu reer te bu ñu feebaree dañuy xalaat dem ci clinique bële lu waral loolu te hôpital bi nekk fi war dimbali nit ñi ñu koy business dem ba benn kër médecin woo ko téléphone ni ko ñëwal nga dimbali malade bi mu ni ñu carrément man ma garde ayoo ma garde te nit ki di bëgg a génn àdduna ñëwal nga dimbali ko sonn nañu ñun nga xamante ko jox nañu dimbali wutal ñu ay médecin yoo xamante ni dañuy ñëw pour askan wi ñu yor hôpital bi tamit ñu ngi leen joxañ baaraam am nañu xoolaat accueil bi hôpital tey boo feebaree boo ñëwee ci bunt bi dañ lay buntu xataal dañ lay toroxal metti na lu yàgg a kaas la nag mais tey la yàlla dogal bakkan génn ci lii raam ci ñag bi la jëm waaye tey na ci ñag bi ca ne yëg nañu nag mbir maak na mu amee askan waak la ñu yàgg tawat ba tax na mu ne itam nag mairie ba lépp lu cay mën-mënam ak taxawaayam dina ko ca def Khalifa Ababacar Ndiaye ak Cheikh Tidiane Diagne je pense que li ñuy naqarlu tey fi mu leen toll fu ñu toll xam na suñu diggante ak ki nga xam ne moom moo génn àdduna muy Tapha Cissé yaakaar naa ne bañ xàmmee lañ commencé ànd ba tey ba démb ci guddi lii métti na tiis na ah gis nañ tamit bañ ñëwee fii ni ñu traité xam nañ ko parce que ñun démb ci guddi su ma ne deux heures matin ba tey nelew ma ñu ngi jaabante fii morgue ba këram kon xam naa ci lu bëree bëri am na tamit ñoo xam ne ay témoin oculaire lañ en tout cas liñ mën a wax mooy lépp lu ci war muy côté administration mairie bi dina ci dox lii duñ ko bàyyi mu sedd parce que problème bi du lii kese mais dañuy xeex pour ëllëg ñu bàyyi ci xel baax a baax léegi nag li ñuy ñaan mooy manifesté nañ information bi yegg na fu nekk donc lii du loo xam ne dañ koy bàyyi mu nekk lu impuni wax naa leen ko sànq dinañ ko topp ba fi mun a yegg parce que nag yàgg nañ jooytu problème hôpitalu Passy man mi wax ak yow jooytu naa ko CDD ak lii du lu bees mais nag dafa war a dakk nag parce que duñ bàyyee ni mu continuer toujours genre yi mooy am li ñuy ñaan mbooloo mooy manifesté nañ yëg nañ ko autorité yi ñëw nañ ñun dinañ dem rencontré ñoom wax leen li leen di wax donc li ñuy naqari xol lañ am yokkaat kon day gën a ñaan mooy ñu dal ànd ak tey ñun lu ci ñun ñoo ko jël mairie Passy porté ko suñu bopp kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax euh, ci euh, jamono jooju nga xamee ni itam ne leen ci askan wi ña ngay jànkoon tekki jafe-jafe ngir feebar faju euh, jàpp leen ne itam ne état bu Sénégal bi jaaxale ko nag ci kër gi ñu dénk wàlluma CMU ma ngay na si pexe nag ngir lu gën a ñoŋal wàlluma paj meek paju mi ci mim réew ca loolee sax nag xaatim nañu rek ay convention ak union nationale des mutuelles de de santé déggoo baak la mu làmboo dañu cay leerloog Cheikh Babacar Dieng. mbooleem ni jiite ay mutuelle de santé ci réewum Sénégal ñoo ngi dajee ci woon ci Kaolack njiital couverture maladie universelle moo doon signé ak ñoom ay convention yu bees André ba Wade moo jiite union nationale mutuelle de santé yi ne ne lii yokk na leen doole. dénk mutuelle de santé pour ñoom ñu ñooy gérer wàllu gratuité yi maanaam politique zéro cinq ans plan Sésame politique césarienne ak yeneen politique yi nga xam ne agence moo ko jëloon muy jalis ak yooyu ndax jafe-jafe ci li mu ciy dépensé dafa bëri mu ne damay liggéey ak mutuelle yi tey pour ñoom ñu jàppal ma pour kuy ñëw di faju si léegi day jaar ci ñooñu mutuelle yi teg ñu tuddee ko bureau CMI pour mu jox leen lettre de garantie ñu doog a mën a faju parce que nit ñi dañ daan ñëw rek naan man magu 60 ans la wala lii la léegi dañuy jaar ci bureau CMI mooy tax ba ñu mën a trier tey xam kan moo war a faju ak kan moo farul faju convention bi nag signé ko nationale bi docteur Bokar Mamadou Daaf mooy directeur général bu CMI. waaw union bi xam nga sooy defee convention il faut que mu ànd ak dara pour ñu dem mun a def seen réunion ak yu demee noonu donc euh, union nationale bi dinañ ko jagleel vingt millions union régionale total loolu nag dina leen permettre suñu amee ay réunions yu ndaw réunion de suivi ñu war a def déplacement tuuti ñu mun ci jàpp mais loolu terewul aussi suñu amee yeneen yi nga xam ni dépassé montant boobu agence baa ngi feebaru faju nguur gi gàddulu lu ci ëpp bëri na lool lu ko syndicaliste yi ci santé yi di ŋàññi léegoo-léeg am sax ay hôpital yuy grève ndax dañ leen a amal ay facture lii nag directeur général du CMI jàpp na ne taxu ko am solo noonu li ñu bëgg daal moo di nit yi di faju ndax lépp état bu Sénégal moo ko yëlif muy CMI muy hôpitaux yi léeg-léeg dañuy wax ni que paiement bi day tardé loolu aussi mu ngi dépendre ci facture yi parce que su fekkente ni yaa ngi contrôler facture nga gis yi nga xam ne demeewul noonu obligé delloo facture bi bëgg ay jagalaat ko nga doog fay nii ni suñ ko defee yaakaar naa ni dana yombal mbir mi et danañ mun a fay bu baax ma bëgg a wax ni aussi que dette yi ñuy wax c'est normal parce que assurance bu ne du mun a am solvabilité à cent pour cent tout le que nit ñi saa yoo amee lu baax bien-être da ngay bëgg lu gën a baax moo tax nit ñi suñu fajoo dañ waat fajuwaat fajuwaat loolu wane nañ rek sénégalais ñii ñu ngi faju c'était ça l'importance li gën a am importance mooy loolu na sénégalais yi dem faju ji gis nañ ñi sénégalais yi avec les mutuelles de santé avec ngi représenter plus de cinquante pour cent jamono ji nag bu ñuy xool ci Sénégal ñi nga xam ne am nañu malaanum kiir laay ci feebar faju jaaree ko ci mutuelle de yi ñu ngi ci téeméer boo jël juróom fukki nit yi ak benn. Jokko Jàll Cheikh Ababacar Dieng jéego yu soxal nag wàllum convention yooyee fa mu tàmbalee ak fi mu yegg si ak woyofal gi ñu ci bëgg a indil askan wi lii lépp nag moom jiital CMU di docteur Bokar Mamadou Daaf dellu si na ceek Cheikh Ababacar Dieng. dañu ñëwoon fii tey daje ak organisation mutualiste yi ngir signer ay convention convention yooyu nag comme ni ngeen ko xamee ne depuis bi ñu mettre en place programme bi en dañu jël décision naan liy dem ci assurance maladie dañ koy jaarale ci mutuelle de santé yi ñu jox ay jéego 2018 ñu commencé signer convention ak ñoom pour que ñu jël ay xale ay ndaw ñi nga xam ne dañuy dem ci kër yi ci marché yi ci luuma yi pour expliquer lan mooy programme bi lan mooy assurance lan mooy mutuel de santé naka lañ ciy adhéré soo adhéré ban bénéfice nga ciy am loolu nag doxal nañ ko depuis donc 2018 ba léegi nii ñu ne ñu saytuwaat naan dañuy améliorer comme am lu mel ni 53 pour cent de couverture ak lu léegi dañuy fexe ba xaalis bi ñu utiliser ñu gën ko yàqanal gën ko utiliser ci anam bu baax moo tax ñuy taxawal bureau CMU yi nga xam ni xale yi dañuy dem ci structure de santé yi toog fa loolu nag laata ñu koy def dañuy defar benn arrêté bi nga xam ni suñu ministre yi ñoo ko signé arrêté interministériel diggante ministère de la santé ak ministère développement communautaire bi nga xam ni moo taxawal bureau yooyu bi ñu taxawalee bureau nag ñu ne loolu aussi comme la dimbale la def nga def ko rajo boo war a def nga def ko examen boo war a def nga def ko ak ñu facturer ko normalement li mutuelle aussi ñu fexe ba lettre de garantie ba ñëw ñu fexe ba nit ki ci démarche bi parcours hospitalier bi ñu fexe ba mbir mi an facture aussi ñu mun leen contrôler à priori pour que mu bañ a am ay jafe-jafe kon nag ñu ngi remercier aussi président la république ci gis-gis bu mu am vision boobu nga xam ni dana permettre sénégalais ñu faju waxtaan na ceeki Cheikh Babacar Dieng lu ko jiitu itam nag muy dikkaat ci solo sa ndaje ma leen tënkoon ñu teewlu ay kàddoom waaw tey dañu dajeek euh, agence mouvement mutualiste route bi yëpp mu ngi fi président union départementale président d'union régional ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu doon dajeek agence tey ci ginnaw bi ñu amee ay négociation xaw na yàgg te mën naa ne depuis novembre ba tey ñu ngi ci négociation ñu ñu boucler négociation yooyu ñëw tey ni dañuy signé convention convention yooyu entre agence la ak union départementale entre agence et union régionale et créé union nationale des mutuelles de santé li yokkute la ndax yàgg nañu signé convention ak agence depuis mais yokkute la ci kaw agence ni tey li ñu doon def pour ay ndaw di dem di sensibiliser di liggéey pour mutuelle yi donc loolu renforcement responsabilité mutuelle yi la la ñu gis tey état di ko jox mutuelle yi te ñu koy rafetlu bu baax a baax fas yéene cee liggéey bu baax a baax itam pour li nga xam ne moom lañ ciy séntu ñu am ko waaw pexe yi ñu teg mooy benn bi ñu waxee mutuelle de santé dañu ne nag commune bu nekk am lu organisation bu jege nit ba nga xam ni boo nekkee ci benn commune laal ñëpp dafay yomb ci yow donc ñu teg loolu moo tax à partir de ñi fa nekk ñuy liggéey ak communes yi di liggéey ak yeneen acteurs yi muy groupement féminin ak ñeneen pour que véritablement sensibilisation ma ciy profité pour rafetlu liggéey bi ñu liggéey ak waa santé ci seen agent de santé communautaire donc ñu leen di déployer aussi ñoom ñuy jàpp ci sensibilisation bi ñaareel ba depuis 2018 ak agence ñu ne dañu renforcer communication marketing sensibilisation di dem ci kër yëpp pour sensibiliser nit ñi di dem ci marché yi di dem ci place publique yi pour waxtaan ak askan wi ndax mu gën a xam mutuelle de santé te di adhérer ci mutuelle de santé la ca toppaat mooy nit ki li nga koy woon daf koy gis moo tax wàllu faju gi ñuy fexe ba mu nekk faju gu jaar yoon mu yomb ci nit ñi te ñëpp teg ci bët buñ ko gisee dina tax ba ñi nga xam ne gëmuñu woon dañuy yaakaar ne dañuy wax rek ñoom aussi dañuy gëm pour que adhésion a yokk facilité itam mu yombalal leen ko pour ñu mën a ak di def ay campagne de promotion maanaam wàññi yenn yi nga xam ne nit ñi dañuy mën a adhérer ci mutuelle de santé yi yooyu mooy suñuy pexe. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 nañu ko waxee nag ca bopp ba la ñu ko yaatalee rek ci ponk yi a ah, junjoon naa leen ko njàqare nag jamono ji tàmbali nay ah, dugg xam ngeen ne itam ne ay fan rek moo des ngir ñu àgg ci feetu korite gi nga xamee ne itam ne li ëpp ci askan wi ay ginaar la ñuy faral di ah, jëfandikoo waaye nag bu ñu moytuwulee ginaar yooyee daal dina manqué mbaamu mu cher ba yegg ci lool loolee nag Basiirou Ndaw moo ko dal di xamle ne lu ni mel itam nag dara waralu ko lu dul aliment bu cher poussin yi itam la ñu ko amee woon cher lool teele lu baree bari ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. korite gi ñu jëm de dañ ci profité waale sax am lu ñu waxtaanee ak askan ndax ñun dañuy yar dañuy jëfandiku damay njëkkee yar bi ndax ganaar ku la ne fi ne nii dana doy wala du doy day wax lu ko neex ndax cuuj bi doon jaar téeméer ak téeméer ak ñaar fukk boo amul téeméer ak juróom ñeent fukk doo ko am ba pare te doo ko gis aliment bi doon jaar 15000 mu ci 18000 ba pare te doo ko gis ensuite taux de su ma maanaam téeméeri ganaar la laaj ko ko gëm te am na ci ñu ci tane boolee tàngoor wii nga xam ne ñëpp yëg nañ ne nit ñi sax attanuñ asama malay loolu yëpp boo ko boolee ba pare te état bi amul lenn loo xam ne dimbale na ko maanaam secteur bi amul loolu nag buñ ko jànkoonteel boo gisul loo liggéey da ngay toog ndax boo mënta am cuuj boo jënd yar ko boo ne ganaar dana am it wax lu neex ganaar dana am moom yaakaaruma ne mu bari gi moom du am mën a am nag mais bari li ko ganaar yi dikk fi mu ne nii àgg na 2680 quelque francs la la ganaar gi dégg loolu boo ne ganaar gi mën naa ko jaay juróomi téeméer la juróomi benn téeméer da ngay nax sa bopp parce que boo ko defee sa xaalis ngay dëgg ci sa xaalis ngay dëgg loolu daal mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom secteur bi jànkoon nañ ko ci wàllu yar gi léegi ren ñaata ngeen di jaayee njëg ah ganaar de xam naa ne moom ñun de li nga xam ne moom la ñuy jaayee xam ganaar fa am poids boo xam ne bu ko amee 3000 francs nga koy jaayee am na poids boo xam ne bu ko rombee nag mënatoo ko jaay 3000 ndax mu ngi dépendre ci maanaam yow la nga ca dépensé pour yar ganaar gi ak poids ba mu am mu des nag beneen wàll gi muy wàllu jëfandiku gi wàllu jëfandiku moom ñaari mbir am na ci benn bi moo di euh, ganaar gi moom nam doon yombee di jaar 2250 2500 2750 duutu yomb boo xoolee yàpp xar mu ngi ci 4500 yàpp nag mu ngi ci 3500. beneen jafe-jafe itam nag bu ñuy dund te di ko méttitlu mooy nag cuisse ak ginaar yi ñuy faral di fi importer maanaam daal di ko fi dugal muy faral nag di yàq seen liggéey gàntal seen ak njaay waaye tamit nag mën a indil askan wi ay lorange yu baree bari ba tax na ba tey moom Bassirou Ndaw ma nga cey artu kilifa yi ñu teewlu ay kàddoom. ba pare ñu boole ci di indi ay ganaar yu jógee Gambie ak ay cuisse di ko ci biir dëkk bi loolu ñu xamal ci nit ñi ne leen waxuma sax jalgati yoon

léegi nag ñàkk jar googu xam nga da tardeel ci dugalaat parce que ganaar bu sa poulailler setul jeexul la nekk bu jeexul doo ko mën a bale dugalaat loolu si déjà rek maanaam problème bu mag mag la loolu si nguur gi waxuma sax li ci ñàkk ci wàllu xaalis parce que duñ fay douane duñ fay dara ba pare indi ci réew mi loo xam ne baaxul te loolu ku ci nag gis na ci technique sa bët xam ne douane bi bu yàggu rek jàpp nañ fi oto bu fees dell ak cuis xamel ne leen ne bu leen dem ci pulaay nit ne la ganaar 3000 lay jaayee nga yaakaar na daf lay chantage déedéet mais lim jàpp noonu lépp taxul nga ne mu dëñ fi déedéet boo duggoon ci marché bi tey da nga fi fekk cuisses ak ganaar ba tey mu ngi ci biir dëkk bi mais ñoom autorité yi au plus haut niveau xam nañ léegi ne lii am na donc ñoom dañ ci wut ay saafara d'accord léegi euh, li dee ci ganaar lépp ak li am ci wàllu consommation est-ce que xayma ngeen ko yéen bon du neex a xayma que xam nga éleveurs yi bokkuñ ci association bu bokk ci mooy maanaam poulailler bu ne ñu xam borom chaque année lu muy dugal ak lu muy jaay ak lu muy deele ngir statistiques yooyu mën ko jox état bi maanaam loolu moom bokk na ci bi nga xam ne association dana ko liggéey ak euh, service élevage euh, kadoon addu euh, noonee nag mooy Basirou Ndaw mi nga xamee ni moo jiite jaaykatu ginaar yi ci diwaan bi ñeneen itam ñoo xamee jafe-jafe nag mooy liggéeykat ya ca surtout décharge mbalit ba ca Kër ma Jabel jamono ji nag mënees nay wax ne sit ba daanaka liggéey amatu fa ndax it nag tëj na te loole nag dara waralu ko lu dul ay jafe-jafe ci wàllum koppar El Hadji bu Thiam point focal du réseau des éco-citoyens du Sénégal ma nga cay indi ay leeral ci micro suñu ndaw noo bi yaay site bu yore mbàllu mbalit bi ñu tuddee ko le site de transfert et de valorisation des déchets mu nekk barab boo xam ne Caritas daf si def plus de quatre-vingts millions aménagé ko pour que dimbale commune Kër Madiabel pour que mbalit mi nga xam ne ni dañ koy ramasser sa mujj ga ñu man di ko tànn di ko trier parce que mbalit or la loolu moo taxoon ñu aménagé site mais nag par défaut de moyens tey moo tax site bi dal di tëj parce que si site ba dafa war a am ay trieur muy ñoo xam ne heure bu mbalit mi ñëwee ñoom ñoo war a dal tànn mbalit mi jël plastique bi def ko à part jël fer bi def ko à jël li nga xam ne ni mën nañ ko def engrais ñu def ko à part ñooñu nag ay nit a koy def te nit ñooñu dañ leen war di fay mu war a am aussi benn gérant boo xam ne moom moo war a gérer site bi mais nag comme trieur amul fa gérant amul fa à la kuli en rek site il faut mu taxaw te site boobu tamit pour que mu dox ñi sa bokk dañoo war a fay ñu mën a dajale lu bëri commune bi war na am as lu muy génnee si gaf Fagam di ko dimbale kuréel gi nga xam ne ni moom moo gérer site pour que site bi mën a dox léegi war na mat ñetti weer ba ñeenti weer parce que tëj na du benn yoon bii rek la tëj mais tëj na ay yoon yoon njëkk na tëj mais bi ñu ñëwee ba élection yi jublu si dañ ko dal di ubbi mais nag juste après élection yi dañ ko dal di arrêté mu mel ni élection yooyu ba léegi dañu jël mbalit moomu di ko xappu ailleurs fu mooy site bi dal ñi ko fa doon liggéey dañoo tekki seen ndombo tànk muy trieur yi ñu doon tànn mbalit ki nga xam ne ni moom moo nekkoon gérant bi parce que tamit bu liggéey di fay Ah, soo liggéeyee ay yoon yoon fayuñ la tamit su boobaa da ngay tekki sa ndombo tànk bi may yoree rog bi maa ngi woon si plus de 700 abonnés mais bu fekkee ne abonnement yooyu dafa xaw a a bu ko si ramassage des déchets yi du a boo xam a fay engins yi dañuy ah, bàyyi nag Kër Ma Jabel dikkaat fi nga xamee ne moo di ci Kaolack commune dem ca abattoir Ndangaan waxtaane fa nag wàllum assainissement ak it tali ba nga xamee ne ñetti ci at boobaak tey jii liggéey ba ma nga fa tagga lu ni mel nag daal di jural askan wa rek ñëgg-ñëggu xol ba tax na sax ña ngay artu ak yëglu ci kanam kilifa yi Arona Faye àdduna ci mi ngi ci micro noa bi ay ndangaan liggéey bi jeexul boo xoolee liggéeyu tali bi ndangaan bi mooy liggéey bi njëkk a tàmbali ci yeneen boo ko xayma ak yeneen tali yi waaye boo xoolee yeneen tali yi yëpp pare nañ te moom liggéeyu ndangaan pareegul loolu nag xamaguñ la moo waral ñu ñuy tuutil noonu di ñuy neenal ci anam boobu te bu weesoo loolu am na benn canal boo xamante ne ginnaaw jumaa jumaa ju magi ndangaan bi canal boobu dafa versé yu ci géej ga te gis nañ ni liggéey bi yeggut te loolu bu ko fi nawet bi fekkee ndox mi mën na du wuññeeku dem occuper kër yi te su boobaa dina doy waar moo tax ñuy lancé appel autorité yi nga xamante ne ñoo yor li nga xam ne mooy liggéeyu Promoville ñu fexe réagir nu mu gën a gaawee fexe travaux yi yegg balaay nawet bee ñëw parce que bu ndox mi wuññeekoo rek dina nangu kër yi te su boobaa dina jur musiba boo xamante ne duñ ko fàtte mukk moo tax may lancé appel au nom de si mu def tout ba fexe liggéey bi yegg nu mu gën a gaawee parce que loolu la ñuy xaar ci moom waaw foofu instant bi travaux yi moo tax travaux yi moo tax mais dañuy xëy ñu ñëw liggéey fa ñu xëyaat suba ñu bàyyi jël bagage yëpp demaat feneen mel ni feneen mooy gën a prioritaire te feneen fu ñuy dooleel yëpp liggéey talu nangaan bi moo njëkk a commencé presque depuis 2017 lañ tàmbali liggéey talu nangaan boobu ba léegi ñu ci 2022 cinq ans après liggéey yi mënul fexe ba pare loolu nag vraiment c'est une situation déplorable mu nekkoon ay kàddu yi Arona Faye dañu naan coow nag utali ji rek Touba Mbacké eh, ci lu tàqale nag dëkk bu sell boobee ak wàllu mbënd mi nga xamee ne eh, saa bu nawet see mu ub bopp askan wa moom nag Ababacar mbay may directeur général bu ONAS am na ci xalaat ba yóbbu loon ko xalif général des Mourides muy nag ab projet bu eh, tolloog ñaar fukk ak ñett ci ay milliards ndax xam Mamadou Moustapha mbay projet ñaar fukki milliards ak ñett ngir fexe Touba jafe-jafe yi muy jànkonteel ci wàllum assainissement jamono ju nga xamee nawet ñëw na jafe yooyu wàññiku moom la Ababacar Mbaye DG ONAS indiloon Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. d'exécution travaux yi fukki weer la ak juróom-ñett donc euh, fukki weer ak juróom-ñett ci étude ci la bokk mais fi ñu toll nii je crois que comme ni ñu ko waxee rek comme nawet baa ngi ñëw dañ def tout pour commencer fi nga xam ni suñu commencer foofu dana mën wàññi li nga xam ni mooy gestion ndoxu taw bi mais su fekkee ne àggul toujours comme ni ñuy defee dañuy mettre en place benn système xam ni dana tax ñu mën a pomper ndox mi fi nga xam ne foofu la la def pour wàññi carrément li nga xam ni peut-être yaakaar naa ni inondation wala am moo mun ko wàññi bu baax a baax donc mën nañu wax ni ci ñaari weer yi ñetti weer yi dañu def tout pour au moins teg fi loo xam ni dana mën a rentable dana mën a contribuer ci gestion ndox mi mais waxuñu ne rek dana mën a pare loo xam ne 3 mois sur 18 mois du mën a pare mais dañu teg dispositif de pompage boo xam ni dana mën a wàññi li nga xam ni moo war a indi gàllankoor ci biir kër yi. Serigne Bassirou Mbacké Abdoul wax ne nanu bàyyi xel ne màggalu Touba at yii nu dëgmal nawet lay doon Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 ngeen di wéy ba tey nag di ñu toppandi ci juróom-ñeent fukk yu tombal benn ña nga ca taaxum kaw ma ñu dutee Cheikh Imam Assane se dal di wax rek euh, jëmee ci euh, leneen violence bi ñuy faral di nemmeeku nag ci euh, lekkool yi moo xam ci diggante jàngalekat ak élève wala élève ak morom mi doon na nag jamono ji lu ëlëm bopp askan wi bu ci mujjee am nag mooy ba xewoon rek ca Kaarang ci ay bés yi ñu génn ba tax na nag moom Cheikh Tidiane Diagne waxtaane na ko ak yenn ci ay élèves laaj leen itam ana lan moo cay seen ak xalaat li sabab bi taataankat du El Hadji Abdoulaye Niass. violence bu ñu gis suñu mbokku élèves mu xew feeñ si Kaarang ñu ñaari élèves yoo xam ne dañoo nekkoon di xeex ba affaire bi dem si yoon léegi nañu bëggoon def benn message de sensibilisation sensibiliser suñu mbokku jeunes yi yoo xam ne violence daan ko gisee feneen mais pas si école yi wala si établissement yi te léegi lu nga gis si yi léegi dafa bari torop léegi nag ñun nag lan moo ko waral parce que

nangam yu con ba professeur bi ene élève bi ñu jotee si parce que gis nañ ko maintes fois fii lii sama jooy ngaaj aussi tamit dégg nañ dans les raisons différentes mais bii élève ak élève la entre élève ak élève ngeen jàpp ne ñu ngi xeex est-ce que am ay conflit seen biir léeg-léeg euh, coow di am ci classe yi ci biir jàng mi mais bu fekkee da ñëw jàng rek ñibbi coow mën bañ am waaw si li ma yaakaar parce que boo xoolee élève élève ma bu ma gisee ne conflit problème comme jigéen par exemple ay affaire wax yu sew mën a nekk par exemple tey nga gis benn xale bu jigéen ngeen nekk yéen ñaar kenn nekk yéen ñaar parce que gis nañ ko bu yàggul Dakar semaine passée ñaari xale jigéen yoo xam ne seen ñaari copains yi ñoo dañ jàppante si ñoom ñaari xale jigéen ñoo tax ñu jàppante ba kenn ka rey kenn ka te yaakaar naa loolu dafa garaaw ah man moom daf ma ko waaye yaakaar naa mu ngi fi am parce que ñu ngi ko fi gis daal maanaam gannaaw kàddu yi njiital gouvernement scolaire bu lycée Valdiodio Ndiaye boobee kenn ca élèves yooyu itam naka jël na kàddu moom nag la mu xamle mooy na rek école yi du barab bu ñuy defee violence tey it nag itam nag joxoñ na baaraamu tuuma waajur yi soxal wàllum yar gi ma ngay sàkku itam nag ci kilifa yi ñu jël ay daan ba nga xamee ni itam kenn dootul xalaata def lu ni mel Serigne Mbacke ma ngay tontuwaale yeneen laaju Cheikh Tidiane Diagne. loolu du dëgg du yoon école da nga fay ñëw pour jàng xam moo la fi indi léegi bu ñu demee ba école yi léegi tey ay violence di fi am ak xam nga comme li élèves rek suñ système mu jàng baaxul parce que loolu noo s rek violence dafa baaxul mais sakamtuma école nga yow nga tiim sa moroomu jullit nekk jullit chrétien nga tiim loolu moom kenn du ko def nit su ko mënee sax léegi xaji xaji sax léegi defatuñ loolu kenn xuloowatul kenn xeexatul. yéen am ngeen ci part de responsabilité yéen yenn saa yi ñëw ci benn école boo xam ne da ngay gis élève bu ñëwee du xam kenn du waxal kenn dara moom day ñëw toog ko mën a wax ak kenn te loolu du yoon nit boo ñëwee ci ay nit da ngay jéem a nga ñëwee jéem a bokk ci biir nit ñi ndax loolu moo koy def te tamit ñi mag nañu dimbale ñu ndaw parce que ñëpp yamuñ non lépp loo gis am na loo xam ne du ci école bi la parents parce que école boo amee sept foog naa nga fiy dugg am na loo xam ne sa parents ñoo la ko war a jàngal ñoo élèves xam ne dañuy am haine loolu ci école newul ci professeurs yi wala ci établissement yi loolu ci parents yi la parents yi ñu fa ci war a taxaw boo gisee nit nga jàppee loolu ci xalaat ci loolu na nga war a def na ko def parce que loolu kenn ko def parce que xale bi instant yi su ko xojoon mu dee moom instant yi loolu muy wax xam nga du mën parce que lii soo leen ko corrigé ëllëg keneen mën na koo defaat te yoon mais bu jëree ñu dóor ko wala ñu tëj ko nañ ko def faaw ñu yor ko. yow délégué ban classe nga. man délégué seconde yi ci Alfayda. yegg si euh, nañu nag ci ponk ba ñu euh, jagleel reportage yu koor gi digoon naa leen ko Medina Baye nag ak nañuy euh, dundale weeru koor gi dalee ko ci njàngum kaamil yi firim alxuraan bi hadis yi ak li nga xamee ni moo di naafila yi lii lépp nag ana lan mooy cosaan waaye itam nag la mu ñu gën a gëstul moom suñu ndaw mooy ana lan mooy itikaaf yaatal gi ak Alioune Badara Diop. ci waxtu weeru koor gi ñu nekk nag fii ci Medina Baye koor gu mucc ayib nga fi am ginnaaw jàngum alxuraan bokk na ci ni ko borom faydu bi di seexa islam doon defee ci waxtu koor gi boole kook ay xadis yu wér xam-xam bu mucc ayib ga nga xam ni àdduna wërngal këpp ñoo ko ko nangul lii lee doon na loo xam ni taalibe yi nekk fii ci doon bu Medina bàyyi moom la ñu roy leeral yi ak imaam Cheikh Tidiane Cissé. Buxaari la sharxam bi ñuy wax euh, Fathul Baari Baye moom la daan jàng fii jumaa ji ay sharxam bëri nañ nag lool waaye Baye bii la tànnoon di ko jàng fii jumaa ji ci weeru koor ak ci lu dul weeru koor nag nee na xam naa xat-xat yi moo tax nit ñi amuñ joti toog di amoon tam di ko def ci lu dul weeru koor mu gën a jot te lépp rek yiw lay nekk dellu ci nit ñi ndax am na saw yoo xam ne nit ki dana foog ne xam na ko te fekk xamu ko bu ñu ko jàngee ci xadis dana xam ne nekk yonent bi waxoon na lii loolu nag dana jëriñ ko déwén ci jàmm defaat ko at yu bëri itam ci jàmm ah, li mu jëlee ci weeru koor kay li yàq koor yëpp defar ak li nga xam ne moom lañ ci digal ki or pour mu ko def ngir yool bi mu jógee fa mu ne ko utal leelatul qadri ko ci nangam ak te loolu yëpp mënoon na ci noppi te noppiwu ci daf ñu koo xamal mu jógee fa mu indi naafile yi baabu taraweex bunti boppam la mu jógee fa itikaaf bunti boppam la moom mooy door a jeex tey nii loolu yëpp ay njëriñ la pour ñeel ki or ñu nekk ci fukki fan yi mujj yi nu ñu koy duppee di itikaaf lii lee ñu ko ci sang bu tedd bi di Seydina sallallahu alayhi wa sallam. bunti ku bugg a def itikaaf ba pare gannaaw gi mu gis ne dafay baax daal di génn solo nañ jëlee ci Aïchata radiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne dafay itikaaf ci fukk ji mujj ci weeru mu ne Aïchatu ñaan ko ndigal ne ko dama bugg a itikaaf ànd ak yow yonent bi digal ko ne ko jox naa la ndigal mu ne Xafsatu itam ñaan Aïchatu ndigal Aïchatu may ko ndigal moom itam mu ne Zeynabu bintu Jahsh nag moom ba mu gisee loolu moom ñaanut kenn digal moom dafa am ñu digal rek ne nañ ko tabaxal moom itam bërgéenneem foofu cootu bargenne uujam yooyu mu ànd ak ñoom defee atikaaf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jullee suba rek mu wëlbatiku daal di gis bargenne yi taxawal mu ne lii lan la nii ñu ne ko bii Aïchatu ko moom bi Xafsatu moo ko moom bi Zeynab moo ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waaw lii ndax lu baax lañ ci jublu xanaa déedéet man defatuma sa atikaaf mu daal di dellu këram mu demee ba dog mu def atikaaf fukki fan ci shawal sallallahu alayhi wa sallam lii lée bokk na ci nu mu doon defee lii di itikaaf moom sang bu tedd bi bunti nit ku def itikaaf ba pare di dugal boppam ci néegam ngir ñu raxasal ko ko ndax néeg ba def fekkoon mu sës ci jumaa ji bu amee fenêtre bu fa nekk rek doon mën na ko ci yoor ñu defal ko ci lim bëggu mu delloo seet boppam ci fi mu nekk Aysatu moo sol ne yonent bi daan na itikaaf ba pare di ko yoor boppam bi mu di ko raxasal di ko ko peñeel fekk moom Aysatu jamono boobu mu ca itikaaf ci biir ji di ko yor bopp ko defaral sallallahu alayhi ñu nekk ci njëxte koor gi fii nag ci dëkk bu sell bi di Medina Baye jàngum alxuraan ak firi rawatina naafila gi nga xam ne dañ koy def guddi gu jot fii ci diwaan bu Medina Baye xabaar yi bitim gannaaw bam ñu yóbboo Medina Baye bi la yoon nag bitim réew la ñu jëm ak moom Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf Ngone Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy doore réew bu Mali wax ci njiitu gouvernement bi di la Abdoulaye Maïga moom mu la jot na fësal benn bataaxal ci talaata bi ñu weesu ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer avril bataaxal boobu lee du leen lu dul dànkaafu li di armée française bi ndaxte gis nañ at bi lee yenn ci ay violations yoo xam ñu ngi koy def ci wàllum jaww ji ba tax na xaatim nañu benn bataaxal ngir kat ñaxtu li ni mel. xabaar yi dem ba réew bu Cameroun wax ci benn violation boo xam ne jot na am foofu ci région bi nekk ci nord ouest bi ginnaaw yenn ci ay jàmmaar la yoo xam ni armée bi fare ci gouvernement bi ak benn groupe de jot nañ ko def ci altine bi ñu weesu ñaar fukki fan ak juróom loolee jur luy tollook juróom-ñetti doomu aadama yoo xam ni jot nañ ci ñàkk seen bakkan lu soriwul lool juróom fukki kilomètre ak région bii di Bamenda ginnaaw ci yenn dànkaaf yoo xam ne jot nañ ko def juróom ñaari xam ne dañoo bokk ci armée bi kenn koo xam ni ab civil la ñàkk seen bakkan ci mbir mi ñu mel. xabaar yi bitim dem ba réew bu Gabon wax si juróomi parti yi nga xam ne ñu bokk ci kujje gi ñoom moom la ñu bëgg ñu mettre en place li di commission de réflexion ci waajtaay li nga xam ne mooy code électoral bi li seen mébérkat lenn la mooy que ni ñu organiser li nga xam ne mooy élection yi ci anam yi mucc ayib te càcc ak dara du ci am loo xam ne da lutmal ak carte gi li ndam tamit bëgguñu gis tamit li nga xam ne mooy wàllum violence ba tax na système électoral boobule jot nañu ko présenté ci àllarba bu ñu ñaar fukki fan ak juróom ginnaaw bi ñu saytoo ci yenn yu bari yoo xam ni ngir ñu mën a amal lii di élection yi anam yi mucc ayib. xabaar yi bitim réew. wax ci France Média Monde ginnaaw bi mu contesté décision bi nga xam ni réew bu Mali jël na ko ngir dakkal bépp signal foofu ci réew bu Mali ci ñaari média yi bu ci mel ni France 24 ak RFI mbir moom doon na loo xam ne lu leen naqari lool la ba tax na mu ngi ci xar tànk tubéyam ngir kat ñu daggal bi la ndax ndaxte lii di média yooyu la dañuy def seen liggéey. xibaar yi bitim réew jeexale xibaar bitim réew ca réew bu RDC Congo wax ci effet yi nga xam ni lii di crise Covid 19 bi amee na ko loolu war a ñu gis yeneen i feebar yoo xam ni jot nañ fay génnaay yu ci mel ni rougeole bi doon loo xam ne fi ñu toll nii mu ngi wéy di jur ay loraangi foofu ca réew bu RDC Congo ci ndorte li nga xam ne mooy atum 2022 bi jot nañ fa gis ay cas yu bëree bëri ba tax na lii di UNICEF jot na dànkaafu ñi nga xam ne ñoo autorité yi ngir kañ dox ci boobu la bu métti teg ci tamit di laal lu bëree bëri ndaw ñi te li ko mën a dakkal du leen ludul ñu fagaru lool ci wàllum vaccination yi. xabaar yi bitim réew. jërëjëf Soxna yi foofu la yem ci li nga xam ni mooy xibaar bitim réew yi kenn dala jàmm. Seck bangoog xabaaru euh, tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom di ziar ci àjjuma ji xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak remise drapeau national di raay réew mi nag démb ci ministère des sports ci tawaayu Matar Badji di gi ñu dénk wàllum tàggat yaram ginnaaw bi nga xamante ni nag ñoom ñooy champion d' Afrique ci euh, football ñu tax nekk ñu lu ñi ñi euh, dem di représenter Sénégal li ko dalee benn fan bu fukki fan ak juróom ci bi nag nag moom Matar Ba nee na jiitu réew mi nag mi ngi bég loolu ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy gaynde yi ñu fàttali leen Sénégal mi ngi ànd ak Mali Égypte ak Cameroun ngir teewal Afrique ci championnat bi ni mel Sénégal nag mi ngi ci poule D bi bokk ak Grèce Mexique Ouzbékistan ak réew mi di Pologne. 32e finale coupe du Sénégal 61e édition bi nag dina door ñeenti fan ci weeru mai ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ki nga xamante ni moom mooy champion bu Sénégal nag moo fas yéene di coupe CAF tirage bi nag amal nañu ko démb ci ngoon na 64 club yoo xamante ne bokk ñu fu ñu nekk nag ñoo fas yéene bokk ci coupe du Sénégal bi nekk équipe bi nga xamante ni moo ko fas yéene jël des na ko xam fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin gi ñu dëkk ma la ñu waxtaane wàllum bi nga xamante ne nag fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñeent week-end gi ñu génn la woon nag championnat bi domoon na foofu ca Louga waaye nag lu neexul dara moo ci mujj am ndax ab vidéo la ñuy séewal ci réseaux sociaux yi buy wane après ma boo xamante ni daal at moo ko dóor ki nga xamante ni nag moom mooy njiitu CONES di coordination nationale des écoles de football du Sénégal di Alpha Dabo moom nag dellu si waat na mbir mi ni mel daal di koy naqarlu daal di wax ne nag war nañoo xalaat suñu bopp Alpha Dabo njiitu CONES ci micro rajo Alfayda. waaw di ñaawlu rek li nga xam ne moo xew ca luga keroog ci diggante Dakar Sacré-Cœur ak Azak Ndiambour alors ñu jot ay images yu ñu wan ne dafa am sunu benn gone guñ fa yebaloon comme ramasseur benn joueur agressé ko te fekk ko ca ndax carton la ca des nag mooy dama doon wax rek ne dirigeant de footballu Sénégal yi war nañu toogaat xool li nga xamante ni mooy daan yoo xam ne dina mën a protéger suñu xale yi ba nga xamante ni ñun aussi dinañ gën a sawar pour yebal xale yi ñu ñëw def ramasseur ndax tey ramasseur ku ne xam na ne dafa nekk lu ama am solo léegi ci footballu tey ji ndax ramasseur bu match gaawee moom la bu match yéexee moom la léegi nag jot na ñu toog entre ñun ak dirigeant yi footballu Sénégal yi wax lan mooy ramasseur ak lan la ñuy xaar ci ramasseur li ci des nag mooy aussi di dénoncer li nga xam ne mooy liy xew ci sunu terrain yi di xew ci sunu club yi maanaam muy exploitation bi nga xam ne ñu ngi koy def jëmee ko ci xale yi man ànduma ci li nga xamante tey jii ñu ngi koy def di ko exploiter xale yi di jël xale yi di leen jàngal tricher leen jàngal tappale ba nga xamante ni te xale yooyu tey ñoo war a nekk bu footballu Sénégal bi mais ñu leen di jàngal euh, téyel bal bi sànnil bal bi defal nii defal naa man pour man rafet rafetluuma loolu te loolu nag jàpp naa ne il e temps que ñun éducateur ñun ñi nga xamante ñun ñoo téye xale yi ñu leen di tàggat ci ay valeur jàpp naa ne ñun ñëpp moo war a góorgóorlu ba nga xamante ni bu ñu bëgg def loolu loolu loolu nag koy dooleel mooy ak euh, ñi nga xam ne ñoo nanga football bi ñu nga xam ne mooy ramasseur ndax tey jii jàpp naa ne ramasseur nekkatul rek xale booy fort ci mbedd mi sànni xale la boo xam ne da ko a préparé mu xam ci ne football de haut niveau dafa laaj temps bu bëree bëri pour nit ñi di football. fédération sénégalaise bu football daal dinay am nag sélectionneur bu yees jëm ci U23 yi ak euh, ñi nga xamante ñoom ñooy sélection locale bi nag ñaari poste yoo xamante ni nag ndem si yàlla ci APS Pape Thiaw bi nga xamante ni moom la ñu toflaloon ci moom nag moom la ñu mujj jox mu yore sélection locale bi nag daal di war a door li nga xamante ni moom mooy éliminatoire yi ñu ngi jëm ci championnat d'Afrique ci wàllum CHAN naataangoom bii di dem mbay moom la ñu jox nag mu yore U23 yi ñu dem ci danu Europe nag foofu des na ko amal nag li nga xam ne mooy li 1 fanweeri bëccëg beeg juróom tey ci ngoon bu juróom-ñaari waxtu jotee Strasbourg mooy laaleeg PSG fanweeri bëccëg beeg ñaar Bundesliga Union Berlin mooy laaleeg Grèce bu juróom-benn waxtu jotee te ba teg fanweeri simili ma ngoog Gone Njaay gannaaw ba la ñaanal lekk daa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi juma mubarak xibaar yi si Alfayda. ñu wéy ba tey ci xibaar yi yegg si nañu nakk ci kooru Gaye Moloum Géej ak Bara Diop. kooru Gaye Moloum Géej o Haaj Ibrahim Gaye làmbaay a ngi bëgg ñaaw koor gi cete na du benn bum ci ne nit te bum jàpp jàppalu mu mujj ko rëcc li ko ci xaar lépp yëg na ko tax mu rëccu benn fan sax mënu ma ko am ci koor gi. awuzu billaahi mina shaytaani rajiim o Haaj Ibrahim Gaye démb jéemoon na donte jaawalewul makka ak waaye jaawale na naafila makka ak bu Sénégal lee yàq kooram démb mu dogooti tey jile jubal rajo ba naka muy dugg rek dajeek sëriñam ba Baye Mbaye Niass MC Niass Guèye Guèye Niass Guèye o DG sëriñ bi mere naa la nag Baye Mbaye Niass mayit mere naa la moo wund samay tànk Haj Ibrahim dégg naa ne dooy woor DG <laughs> eh Niass dégg daal daa xew mbaa du ci audio rek kon tay ma dee sem si waxuma loolu yow kilifa nga xanaa xamoo ne koor gi benn fan nga tey ko dog danga war a kafaara kafaara mooy ñaari weer yu tegloo ngay woor boo ci dagg tàmbaliwaat wala nga goreel jaam wala leer juróom benn fukki miskin haj ibrahim jaamu yàlla bu ne sunu borom wax na pay ga waaye koor dafa ni mooy borom la ma koy fayee yool gënu ko rëy góor góorgóorlul o oh, haj ibrahim gay xol bee woyof <laughs> waxa di ma dëgg wallaahi seytaane rek Baye Mbaye Niass ñoo nga ci fan yu mujj yi ndax yaa nga waaj génne muurum koor DG loolu lu mu aha jullit ñu bëri dañ koy sàggane ci jaamu yàlla yi la bokk lu war la zakatul fitri waajiba ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen ku am kàttanu génne ko te ñàkkoo ko kañ nga koy génne nag bës bu mujj ci weeru koor mën nga jiital nag ñaari fan avant koor gi di jeex maanaam lu ëpp ci li waa dëkk bi di dundee loolu ngay génnee saa DG mbaay mbay déet nattukaay la mooy ñeenti loxo yu tolloog loxo yonent bi yu yema mbaay ci li ëpp ci li waa dëkk bi di dundee ci sunu Sénégal gile ñeenti loxo ci wàllu ceeb wala lu nu mel maanaam pour mu gën a leer deux kilos virgule vingt cinq grammes ci bopp bu ne góor jigéen mag ndaw képp ku dundam aju ci sa ndodd yaa ko koy génneel wala sax neuf cent francs par personne DG jërëjëf jërëjëf ña dimbale nga ma waaye nag yow it sunu kilifa nga boo dematee bay dugg ci ay mbir baal xel ñi topp sa gannaaw ku la xas xasuñu coow yu sew yi teg ko côté <laughs> ñës bay mbayem si waa dégg naa la naa ci bàyyi xel xam nga rek man injustice laa mënta seetaan quoi no stress mais ma tey yaa ngi ci koor gi DG <laughs> yaakaar mbay bi may romb sànq sama oto yaa ngi ci buntu rajo bi yaa ngi yore kaasu café DG <laughs> mbaadu vidéo rek bul ko publier tuuti laa ci naan tuuti rek li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf yegsi nañu ci ponk bu mujj ci jotaayu xibaar yi li ci yéene kaay yeeg El Hadji ahlan bikum Moustapha Cissé hab sénégalais la fa feebar dem kër docteur docteur ba bañ koo faj ñu di ko sàgganee ba mu faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca diiwaanu Passy hay mbokkam ñoo ko wax turbine yéen a kaay yeggee ñu ko yéen a kaay bi ne démbu diiwaanu Passy tàngoon na jir bés bi yéen a kaay na ko fa ñoo wàccoon ca mbedd ma na danañ xar dëkk ba ndax mer turbine yéen a kaay na ko mujj gi gendarmerie lañ fa yabal ngir saytu kaaraanga ga bés bi yéen a kaay na ko beneen ba ko Kaolack ndax askanu fañ ko doon tëkku ne fañ koy def lu ñaaw tribune yéen a kaay ne kon ganeen càggante amati na ci kër docteur ba tax Moustapha Cissé faatu ndax bi ñu yegsee ca sant de santé bu Passy ba médecin ba fa leen wax ne man mënu koo faj du ko sax xool source a ne hée def leen ndànk yëf wax yi ci am fa wuute de ndax waa kër docteur yu Passy fa ñoo weddi li ni mel nee nañ Moustapha Cissé laata mu yegsi ca ñoom fekk faatu na léegi infirmier leeral ko ndax fa tiitoon ragal mbokki Moustapha ya ne waxu leen dëgg de nañ def am nañ ñu mën a seede ne yegsi na fa ànd ak bakkan mooy sage-femme ya yoroon soxna asu soxna ba mu faatu tey jëwriñ ji di Diouf Sarr dëggal na ne sage-femme ya seen loxo nga ca biir 24 heures yéen a kaay ñu ko xamal l'observateur na ko hee waaye sage-femme yañ ca kaso weddi ko ba tëdd ca naaj wa yow seetal kenn ca ñoom ne na man maa doon xool ak a faj asu soxna waaye faa fàttee bind ci dossier bi yeneen mbir yoo xam ne gisoon naa ko ci asu sage-femme ba sant jaag ne collègue am ba moo bind certificat de décès li tax si ko nag moo jëkkëru asu fa yàkkamti ca wax laata muy faatu yaay booy upp ma faa tàng est ce que suba dina ma fi fekk yaay ndeysaan mu jut ko faa fekk ndax fa faatu keneen ku faatu moom nag fañ ko rey mooy xale bu jigéen ba dëkkoon barñi anta njaay soxna sam àndatoon muy doomu nijaayam ba ndekete loxo ma nga ca biir yaaw seetal libération moo ñu xamal ne anta njaay daal ginnaaw bu ko soxna si ne ko kaañ hànd bañ demee ba ca buntu tabax ba fa ko faa bàyyi dugg ca biir fekk fa xale bu góor ba mémoo ñu nekkal ko fa di def yu fi saay-saay ci la anta njaay dugg na ngir bañ mu nettali ko ci bu góor ndaw sa jàpp sa tànk ya di dóor ba anta mujj faatu ki bëgg a faat rey waaye yeewi askan wi ak wàllu Sénégal ci wàllu politique du kenn ku ma njiit réew Macky Sall ah, yow seetal ma ngay ronqi fay nangu ay maire yu bokk ci ñoom vox populi moo ñu ko xamal turbine yéen a kaay dëggal ko na ko Macky nangu na Gaydel bu Sagata ak Assane Dia maireu Bambey te yeewi la bokkoon source ay yéen a kaay na ko waaye yeew yi ña ngay accéléré seen tànneefu député yi bokk gis-gis nag ñoom ak buntu bi ñoo nar a ànd ci wote yi di ñëw coalition ñoom Thierno Alassane Sall ba bëri nañu lool ci ànd ak waa yeew yi waa wàllu yi ñoom ña ngay ngoro Cheikh Abdou Bara Dolli Barthélemy Dias moom ma ngay sàkk audience ak Macky sàll ci les secours yi ne kaay Barthélemy Dias ma ngay leeral li tax mu bëgg a gis ak Macky Sall mooy jafe-jafe ville bu Dakar ak doxalin ba la ko bëgg a yeggee yéen a kaay bi mel ni kuraan ko yaakaar naa audience bu du gaaw de ndax jël bi nga jël Guy Marius Sagna ak capitaine Touré ñuy liggéey ci yow sa noon yi fañ la cee mere de l'observateur ne Macky Sall kay ma ngay wëyal nangu gi muy nangu maire ku jëgi gaa yi ngi transhumé rek waaye moom na xam na ko doy de Macky Sall dund gu cher geek jafe-jafe askan ak njëg li xam ne mi yokk ci àdduna bi looloo kepp makki 24 heures yéen kaay na ko faala ci yokk laneen lu keppaat makki mooy xiif ñàkk gi wër Sénégal jafe-jafe wàllu koppor ak jafe-jafe politique bi ci biir réew a kepparti makki ba mu génn ci ay jafe-jafe ba lii yéen kaay ma koy leeral la leeral moom réew mi yéen kaay mooy ministère des finances xam na fa ab fonctionnaire boo xam ne fa ñàkk ab immeuble bu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki million laneen <laughs> lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne gouvernement bu Sénégal Sénégal yenn ci ay jëwrinam fañ doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi lépp ngir dalal xelu askan wi Sud Quotidien na ko Sophie Gladima moo njëkk a dalal xelu askan wi ci mbiru kérosène bi laas yéene na ko def nañ fa tamit bilan téeméeri fan yi nga xam ne teer bi mooy saxaar gu gaaw gi farara bi bi mu commencé daw léegi yow seetal juróomi million doomu aadama duggagum nañ ca saxaar ga lañ ca amagum ci xaalis toll na ci ñetti milliards jëwriñ ji di Mansour Faye moo ko wax turbine yéen a kaay mel ni ku naan ko yow da wax nga xaw xay kasaara dëgg yow fa ngaa dëggal li Sénégalais yu bëri doon wax ne teer bii gii saxaar gu gaaw gi fi Macky Sall andi xamul benn njëriñ facee laj ji ndax sénégalais yi am na la leen luñ gën a soxlu mooy ab teer ñu dugal ci alal ju dul jeex te amaluñ ñu njëriñ ndax fi mu toll nii at bu yàlla sàkk Sénégal dana fay ñeen fukki milliards ci teer bi te dañ koy fay ba mu toll ci ñaar fukki at ak juróom loolu foog ngeen ne jàmm la faneen fu jàmm amul Sénégal mooy wàllu wér-gi-yaram gi santé ba tax téemoin yéen a kaay na gouvernement bi def nañ bilan ci wàllu wér-gi-yaram wàllu courant bi dem bég dikk bi tàggat yaram li tax Sadio Mané nekk dëgg-dëgg jamaale Benzema ci ballon d'or bi stade yéen kaay wax na ko la mu wax moom mbay ñang ci record yéene kaay mooy fa bëgg a dikkaat football Sénégal nee na namm na équipe bi te amul benn problème ak Aliou Cissé waaye sénégalais a ñëw ñàkkal ñu fayda ne korite gi narta neex ren de ndax jafe-jafe yi réew mi nekk dund gu cher ge ñàkk gi crise bi la waree journal na ko li nga waxee dëgg de li askan wi dundee fa yokk ba jéggi dayo te xaalis xamut léeg-léeg sax nga dem ci marché bi bëgg a jënd te doo gis loo jënd ba tax yéene kaay bi na korite gi fa nar a compliqué de waa ma ne waaw nañ ko rete rek ci jàmm ak salaam ndax li compliqué dëgg-dëgg moo yenn diiwaan yi nga xam ne jamono ji fa tàng jir jir jir nga boole ko ak xoor kon ñooñu moom buñ ko rek sant nañ yàlla la ñu a lekk ak la ñu a togg moom moo xam ganaar ak ñoom seen xanaa ñu bàyyi ko ci loxo yàlla li ci eh, yéenekaay yi Shukran El Hadji Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi farawoon ci wàllu déglu gi jaajëfal Codou Seck kenn mi ci wàllu xarale gi ak it waa rédaction ci njàppandal gi wéy leen di ànd ak sunu ñu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti tawféex ak taysiir jàngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine